al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu kon uh, mbokk yi man rek maa uh, dellusiwaat uh, Cheikh Ahmed Tidiane Diop ndax dafa am ci mbokk yi ay laaj yoo xamante ni laaj nañ ko mu jëm ci ndax bu ñu defoon dëkk bi lu tollook ñeenti commune ndax mook buñ ko bàyyee muy benn ñooyam te it si euh, sànq panel bi sax am na su koo xamante ne proposé lu mel noonu loolu euh, liñ ci toll mooy euh, li ci tontu mooy del dellu soir rek ci njëriñ yi nga xamante ne moom la décentralisation am décentralisation mooy comme ni nga ko waxoon sànq rek maanaam gën dooleel gox-goxaan yi ak bokk moomeel yi boo leen seetloo Dakar ci bu njëkk toll woon na foo xamante ne benn commune la amoon jamono yooyu Sénégal yëpp sax ñeenti commune rek la amoon muy Gorée Tëngéej Ndar ak Dakar bañ demee ba am indépendance mu yaatu ba daanaka chef lieu yëpp nekk ay commune dañoo dem nag ba gis ni dakaar euh, màggoon na màggaay goo xamante ni sañloo gi ñu ko sañloo ci ci ci roñ mbalit képp amoon na si jafe-jafe yoo xamante ni Euh, dayo dayo bi ak yaatuwaay dëkk bi du yaatu sax ci ci dayo waaye ci ci nit ña fa ne moo indi woon ñu seetlu ne buñ ko xaajoon euh, dana am solo loolu taxoon na ba ñu def ko ay commune d'arrondissement léegi li liy njëriñam nag mooy dana tax la nga xamante ne lañ ko sañloo ci ay compétence ci njàng ci paj ci aménagement du territoire ci environnement muy alam bi ci wàllu culture ci wàllu euh, jeunesse ci wàllu yi nga xamante ne mooy juróom-ñeenti euh, sañ-sañ yi leen jox yépp waxuma ne danañ ko def sax ni mu waree waaye dana tax ba kenn ku ne foo mënti ne nekk ci biir euh, ville bi loolu gën laa jege maanaam dañ naan décentralisation mooy fexe ba li soxlay askan wi nga gën ko jege lii saafara bi tamit gën a jege waaw ndax boo jege soxla si su nga koy gën a yëg bu saafara sim jegee ci lay gën a gaaw te te ci lay ëpp efficacité te bu fekkente ni tamit nit ñi war nañ laa euh, càmbar ci la nga leen di defal bu ñu gënee jege ci lañuy gën a euh, mën a euh, def liggéey boobu ndax liggéey boobu tamit liggéeyu askan bi la askan bi buñ la buñ la sañ loo ba noppi jiital la yow da nga leen amal compte rendu maanaam loo def lu ne ñoom it war nga ne ne nangam laa ko defee léegi nag bu ñu gënee jege nag loolu dana dana dana gën a yomb te bu fekkente ni ki lay laaj lay laaj bu jël yaa ngi moom yéene yeewu te da ngay dox dem këram wa ilaa li ngay dox pour dem këram bariwut saafara ay euh, soxlaam ci noonee lay gën a gën a yombee kon mel na ni jegeel communes yi ci fexe ba bu dee njënde bu mag la muy ab ville nga def ko ay commune d'arrondissement loolu ci wàllu décentralisation njëriñ rek lay doon léegi nag dañ koy def ñeent wala dañ koy def ñett wala dañ koy def ñaar loolu tamit ay gëstu moo koy maye normalement dafa war a am en tout cas bañ koy def dakaar ak Thiès ay gëstu yoo xamante ni service aménagement du territoire yi ànd ko ministère de l'intérieur ñoo ànd euh, di ko xool di ko gëstu di ko saytu ba joxe ci lim yi nga xamante ni ak découpage yi nga xamante ni noonu mooy découpage yi gën ngir mën a def commune yooyu li si jar a moytu nag mooy li daloon waa dakaar Dakar boo seetloo buñ la ne am na ñeent fukki commune d'arrondissement ak yu yu teg da ngay xam ne loolu loolu ëpp na. maa ngi jégalu audio bi dafa guddoon moo tax ma ma ma dog ko euh, boo gisee ñeent fukki ak ak ak ak lu topp li bëri na jamono yi ñu koy def mook Euh, coordination wu parti politique bi nga xamante ne moo yilifa réew mi jamono yi ñoo tolloo woon te moo ne la nga xamante ne moom la technicien yi proposé woon fukk la woon ak juróom-ñaar ndax ña ñuy boole dañuy seet ba nga xamante ne nekk nañu ñoo xamante ne solidarité dana am seen biir déggoo dana am seen biir ànd liggéey dara dana am ci seen biir ñu soog leen a ñu soog leen a boole te loolu ñu si jublu mooy am efficacité ba pare tamit. am loo xamante ni mooy mooy mooy euh, lu laal kenn kenn ku nekk xam ne loolu laal na la muy muy muy kon loolu lu lu war a la ci boo xamante ne bu gën a def lu ko moy buñ ko defee masalan bu dee wàllu Tuuba bu dee ñu wax rek wax ju leer ne ne ne kër gu ne nañ ko def commune loolu mën naa bañ a dëppoo ak efficacité wala ñu ne diwaan bële tamit ndax responsable politique yi am nañ fa doole. kenn ku nekk xëccu pour ñu def foofu commune loolu tamit du dëppoo ak li nga xamante ni mooy jur efficacité kon dañ koy xool techniquement rek xool ci wàllu xarala ak ci wàllu technique ak ci wàllu efficacité ñaata commune mooy mooy mooy baax ñu defee ko noonu loolu bu ñu ko defee moom lu ama am solo noonu mooy gën fuuf def ko benn commune. maa ngi jégalu bu baax sax amaat tamit beneen laaj boo xamante ne dafa jëm ci wàllu wàllu budget maanaam nit ñi dajale nañu. budget bu tolloog cinq milliards est-ce que am nañu possibilité mën a gëstu ba xam fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu dugg gis lu mu lu lu mu kii lu mu tëral mooy ni ndaje yi nga xamante ni conseil bi mi ngi koy def ndaje la yoo xamante ne dañ koy yaatal ci nit ñëpp nit ñëpp ku bëgg ñëw teewe mën nga teew teewe ndaje yi bu fekkente ni du perturber maanaam du du am gàllankoor ci liggéey bi nga xamante moom la nit ñi di liggéey way la bu ñu ñëwee nekk ci ndaje ma bu conseil bi décidé ni seen délibération bi huis clos lañ koy def loolu mën nañ ko jàpp waaye bu dul loolu seen ndaje yi ci boppam day doon ndaje yoo xamante ne ndaje public la doon yamu ca jamono yi xëy na newul ci biir loi bi ñu ne nañ koy doxal noonu ba ku ko doxalul jag jàll nga yoon waaye ci principe yi dañoo bëgg saytu gi ñuy saytu bokk moomeel yi nit ñi gis seen bopp ba tax na li ñuy wax budget participatif maanaam laata commune bi di tëgg budget dana def ay enquête ci biir commune bi ba xam lan mooy soxlay askat bi ak lan la askan bi bëgg nga xamante ni bu ñu tolloo ci war a def budget bi ñu bàyyi xel loolu bu ñu exécuté budget bi ba pare am na si commune yoo xamante ne dañuy def li ñu wax compte rendu wax askan bi ne nangam ngeen ñu waxoon la la la lañu la ñu tëraloon si budget at bii nangam ak nangam lañ ci liggéey nangam li ñu yaakoo war nañ ko def tamit defuñu ko te nangam ak nangam moo tax waaye yamu ba tey de man ak képp koo xamante ne nekk si panel bi ak képp ku dëkk Touba lépp loo xamante ni délibération lu conseil bi jël bu la neexee nga am ci copie loolu yoon moo la ko may waaye nag. bu dee lu ñu photocopier la yow yaa koy photocopier sa bopp boo laajtee ñu defal la si extrait compte beeg compte exploitation yeeg lépp loo ci soxla ci am ko ci wàllu délibération commune bi citoyen bu nekk ci biir dëkk bi mën na ko am lii mooy li nga xamante ne mooy li yor yoon li yoon sartal xam naa ni euh, euh, ville ville de fait loolu kenn kenn kenn mënu kenn si dara ndax mu mooy li am moo imposé boppam spécialiste prospective sax am na ñu bëri ñoo xamante ni daawuñu euh, nangu loolu bu yàgg dañ ko daan yemale ca fa mu ne mais réalité bi mooy mooy wane nit Touba Touba rek la la fa nekk ci compagnie bancaire compagnie bancaire la fa nekk ci seen agence ah mais amul feneen à part Dakar kon bëgg ko saytu wala nga bëgg ko gérer comme euh, lu rural loo xamante ni lu lu lu maanaam day dëkki kaw loolu moom mooy mooy mooy mooy gëmm ci jant bi nga xamante ni fenk na rek waaw du du tere mu fenk du tere fa mu war a naajee mu naaj kon euh, texte bi nag nañ ko xool muy muy décret boobu nañ ko xool bu baax ndax euh, ni yaakaar yaakaaree dafa mel ni lu delloo ginnaaw Touba euh, mel na ni mën naa bañ a demee noonu mën nañ ko mën nañ ko xool bu baax daal jërë ngeen jëf. laaj bi nga laaj ni donc Touba devient ville de fête maanaam Touba. day day nekk euh, ville loolu moom même même chiffre yi nga xamante ne moom la statistique yi am boo ko projeté tey jii sur deux générations rek fi ak cinquante ans Touba mooy nekk la ville primatiale du Sénégal mooy nekk la première ville maanaam euh, taux de croissance am na dañoo xamante ne amul beneen ville boo xam boo bu am Sénégal boo xamante ni euh, jege nga ko kon bu bu dëkk yëpp di yokk moom muy yokku lépp yem fi ak juróom fukki at du ko mat sax. moom mooy nekk la la la première ville du Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon ñu ngi dellusiwaat di nuyu sëñ Mame Mor Seye moom mu nekk euh, Afrique du Sud mu samp nag ab laaj ci maanaam statut spécial ci Touba en tant que commune ndax ci nguur gi la euh, tage wala ci jëmmi Touba ci boppam la la tage. man xam naa ni euh, su ma doon euh, tontu ci loolu euh, ñu jéggal ma waaye dama koy tontu ak laaj mais laaj ndax xam nañu bu baax lan la statut spécial di jëriñ Touba ak buñ ñu defal statut spécial pour Touba yan inconvénient maanaam yan lor lay jural dëkk bi ci wàllu développement bien sûr dafa mel ni. loolu mooy euh, li nga xamante ni moom lañ njëkk a laaj ban ban njëriñ la statut spécial di indil Touba ak ni nga xamante ni la doxal nga xamante ni commune de droit commun moo am Sénégal yëpp yëpp nekk ay commune de droit commun ban gàllankoor lay indil euh, Touba moom lay indil Touba nag waaye ci ci wàllu wàllu texte yi ci ni texte yi di di di ndax su ma juumul statut spécial depuis indépendance Euh, dakaar mës na ko am waaye ginnaaw 96 euh, euh, wala sax réforme 96 yi ak réforme bu mujj bii muy bu 2013 bi yépp ay commune de droit commun lañu am sànq sax ba may tontu dama fàtte wax ni réforme 2013 bi ci soppat yi nga xamante ni indi na ko bokk na ci. maanaam dindi li ñuy wax ruralité maanaam loolu daan wax naan lii communauté rurale la lii lii commune la ñu dindi loolu yëpp ngir gën a euh, wane ni bokk moomeli maanaam nawlante nañu. Euh, jërëjëf sëñ Mamor ñi dolliwaat di euh, santaat ñëpp rek di nuyu ñëpp sànq damay mel ni di jéem di indi ay tontu far yàlla dogal. alarbu julli timis gi ñëw moo taxoon mu mu mu dagg noonu euh, waaye li ma doon wax rek mooy euh, tey jii bu fekkente ni soxla nañu statut spécial pour euh, pour Touba li li li nga xamante ni mooy jéego yi ñu war a teg pour loolu mën a am mooy faw dañ dañ dañ koy demande ndax liñ naan Touba dafa nekk ci am réew muy Sénégal. réew moomu am nu nga xamante noonu la tëggee euh, atte yi nga xamante ni ñooy yaxal li nga xamante ni mooy saytu euh, bokk moomeel yi muy collectivité territoriale yi bu ñu bëggee mu am ay euh, particularité maanaam yoo xamante ne day day dañ koy beral Touba faw day am ay demande yu koy yu koy yu koy yu koy yu koy jiitu kon faw dañ koy sàkku ci kilifa yi nga xamante ni ñu kànk ñu ngànk doxalin boobu masalan muy ministère des collectivités territoriales wala muy muy muy muy état bi directement euh, demande boobu nag mel na ni ci Touba lay bàyyi ko est-ce que demande bi am na man yëgaguma fu demande bi amee euh, pour mu ñu mën a xam ndax ci Touba la yéexee wala ci nguur gi la yéexee bu ko defee bu dee am na xëy loolu day laaj day laaj suivi bu fekkee amagul. dafa mel ni dana laaj euh, maanaam booy def demande bi nga motiver demande bi maanaam nga ne lii ak lii ak lii moo tax ñu sàkku euh, li nga xamante ni mooy statut boobu nga xamante ni statut bi spécial lay doon pour pour pour dëkk bi loolu nag day dellusiwaat rek ci ci sànq ñi nga xamante ni ñoom sëñ Mbàkke Abdu Rahmaan lañ doon lañu indee indee woon même thème bi muy muy débat bi nga xamante ni dañ ko samp ci ci laaj samp ko ci gëstu ndax am na lu ñu dégg am na lu ñu gis mu génn ñu ne lii war nañ ci def taxaw seetlu nañu xool décret bi yan moo ci nekk tamit doon loo xamante ni euh, amul lu njëriñ dëkk bi ak lan moo fi nekk ci biir dëkk bi ci ay dispositions yoo xamante ni xëy na mën na gàllankoor dëkk bi nu mu war a doxee rawatina ci wàllu jox ko àqam ak yellefam ci biir réew bi ndax Tuubaa nag euh, dëgg dëgg comme ni nga waxoon sànq ni nga xamante ni noonu la taxawee te doonul loo xamante ni sax dañ ko ko jagleel waaye da ngay xam ni daf ko imposer ci ci ci ci ci ak rek ci barke sëñ bi ndax Touba dox gi mu dox ay jéego ba nekk deuxième ville lu càgg na luñ ko waajalal la ci wàllu texte yi wala état yeeg ñu demee noonu déedéet au contraire saa su ne da daan yëg loo xamante ni euh, neexu wax waaye. Euh, dafa daan mel ni luy xaw a gàllankoor loolu maanaam réalité bi sax nga xamante ne moom la Touba nekk di ko dund euh, tox nañ toog nañ lu yàgg nit ñi nanguwuñ sax ni euh, ville bi mooy deuxième ville Sénégal loolu nag beneen beneen beneen la mais daal li nga xamante ni moo jara bàyyi xel ci laaj bi nga xamante ni sëñ maam moom laaj na ko mooy ñu xool ba xam na demande am na bu demande amee kon mu mel ni bu dee am na yéex ci tontu. laaj na def suivi bu dee demande amul ñu laaj nag léegi nag ndax demande dafa war a am bu dee demande war na am yan mooy li nga xamante ni moo koy motiver lan mooy sabab yi yooyu nag bu ñu ci waxtaanee bu juboo nag ñu ne nag kon jéego yi la ñu war a dox pour loolu nga xamante ni mooy service spécial bi mën a am loolu nag ay xalaat la yoo xamante ne ak ay réflexion yoo xamante ni ñëpp ci war a indi seen seen seen contribution lu caaginu groupe bu ndaw rek mooy euh, toog ne nañu def demande pour loolu li ma yaakaar ni moo gën a moo gën a jaadu mooy bu ñu yëg yëgee ne ñu bëri ngi wax ni war naa am rek ñu ne nañu samp laaj bi nañu toog xalaat nañu toog gëstu wax euh, ndax statut spécial boobu euh, mooy li li dëkk bi soxla bu dee moom la soxla fan yan jéego lañu war a dox ba loolu mën a mën a am loolu daal mooy li nga xamante ne moo nekkoon sama réflexion en attendant euh, gars yi di indiwaat yeneen xalaat ñu seet nuñu ci mën a tàbbiwaat jërë waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, yaakaar naa nag euh, waxtaan bi am na solo am solo goo xamante ni nii ci euh, intervenant yi di di di di sóoboo rek ngay xam ni wax dëgg yàlla lii moom laaj na utal ko ni ko sëñ sëñ sëñ Mbàkke waxee woon sànq ay séminaire yoo xamante ne dana leeral bu baax ñi ngànk doxalin bi ci commune bi ak ñi nga xamante ne ñooy askan wi parce que jar na ko tey jii bu ma bëggoon tontu ci laaj bi nga xamante ni laaj nañ ko mu jëm ci statut spécial bi damay lay lay delloo ci Sénégal lu mu dundugum ci statut spécial tey jii nee naa leen sànq ni dakaar mës naa euh, beru dund statut spécial waaye booba yeneen communautés yëpp ña nga xamante ni ñoo ŋànk doxalin ba muy maire ba dañ leen di fal askan bi leen di fal waaye dakaar moom booba euh, maire ba nguur gi moo ko daan fal. 66 euh, ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba tegee li ñuy wax code d'administration communal statut spécial boobu Dakar amoon dañ ko mujjee yaatal ci chef lieu de région yi nga xamante ñoo fi nekkoon yépp nga xamante ni sept la woon Cap Vert Thiès Sine Saloum euh, Louga jur Jurbel mu ëmboon Louga euh, Casamance Sénégal oriental ak euh, am na benn bu mu wax waxagul de euh, ak ak ak fleuve région du fleuve chef les régions yooyu yëpp communes yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon seen seen maire dañ ko doon dañ ko doon fal kon xam nga statut spécial léeg-léeg nga jàpp ni lu lu lu lu baax lay doon ci yow waaye fekk ci wàllu Euh, sañ loo rek ak jox la ay ay gëdd mel ni ki ñu te askan wi fal la moo gën ki nga xamante ni nguur ga moo ko fa teg kon day mel ni nguur ga ba tey mooy wéyal di doxal euh, ginnaaw bi nga xamante ne euh, yeneen réforme yi ñëw na surtout bu régionalisation bi si tënk ndax bëgguma jël jële naa beneen réforme bi nga xamante ne mooy mooy bu 72 bi nga xamante ne moo jotal décentralisation boobu noonu ci ci ci dëkk yi nga xamante ni moom la ñu wooyee dëkki kaw te ñu sañ loo leen ci ci saytu suuf te mooy sañ sañ-sañ bi nga xamante ni moo ci mooy bi ci gënoon fës am na yenn yu ci àndoon boobu it droit comme moo doon euh, euh, euh, régir collectivité yooyu yëpp waaye seetlu woon nañ ni nguur gi muy état bi ba tey ci wàllu contrôle looy def balaa nga koy doxal dañ koy contrôler ba noppi ne la bismillah nga soog ko def mooy contrôle à à priori bi nga xamante ni moo amoon te ba ñu ñëwee ci euh, réforme 96 bi ñu ñu ñu dindi ko ba pare gën ko nag euh, renforcer ci 2013 2013 moom vraiment le contrôle de légalité a posteriori tey jii mooy li nga xam ne moo gën a fés donc collectivité dañuy doxal li ñuy doxal ba noppi soog a soog a rendre compte kon bu ñu nee spécial dafa mel ni euh, li proposition yi nga xamante ni moo fi jëpp ci leen nañ nañu toog wax ni yan lañu bëgg ñu particulariser ko ci Touba te mu dëppoo nag ak particularité bi nga xamante ni moom la ville bi am ville bi moom particularité moom kenn weddiwu ko te ñu bañ a nag euh, juum xam nga buñ ne particularité bi ngi tàmbalee ci ba nga xamante ni euh, élection falu fi maire euh, nguur gi moom làmbaanu malaanu malaanu malaanu kiiraay boo xamante ni moom foo ko laaj mën a la organiser naa ay élection na ko war a organiser ci Sénégal. waaw ah, audio bi moo daggoon dem na la tey jii boo ne boo nee Touba euh, ci wàllu élection yi dafa am particularité nguur gi moom day mel ni bu naan dédouané na boppam maanaam euh, euh, ut na malaan boo xamante ni moo ko aar ci wàllu wow mooy ba ñu tolloo ci war a déposer ay candidats moom ndawam la fa teg te war a jël candidats yi teg na ko fa nekk jëlal kandidaa yi. ñi nga xamante ne ñoo déposé muy benn liste bi nga xam ne moom lañu fa déposé déposé wuñu ko ba noppi rek moom mu tëj ay bureau ne bu kenn déposé waat ba élection yi jàllee lañ ko wax ci ne bu fekkee ne benn liste rek moo am nga xam ne da ngay teg liste boobu tegaale bulletin blanc loolu tamit def na ko kon moom benn particularité ci na nga xamante ne moom la doxalee élection yi amul woon ci moom ci foofu parti yi nga xamante ne ñoo déposé wul tamit ay liste lu bokk ak la nga xamante ne mooy liste ba ñu fa déposé kenn mosu leen wax ne bu leen fi déposé mos naa dégg benn débat am benn kilifa su kilifa politiciens yi wax ne li am Touba c'est pas normal benn list moo fa nekk te boobu kenn kenn kenn kenn clôturé gul liste yi de ma ne waa ji laaj ko nee ko kenn moo ko tere dem déposé nekk bu demee déposé da dem déposé ba xam ndax préfet bi du jël du jël kii du jël euh, euh, candidature am kon loolu itam nga xam ni nguur surtout ndawatina nguuru Sénégal gi si texte yi nga xamante ni mooy yi mu tëgg nii nekk na ci boppam ba nga xamante ni constitution du ko jam ya nga xamante ni moom la séq ak waa CEDEAO ndax moom it nekkul rek ni dama beru nekk Sénégal lu ma neex ma def déedéet moom it am na ay textes yoo xamante ni supra état la yoo xamante ni moo tiim état yoo xamante ni moom da koy da bàyyi xel ci li muy def kon ci tënk ci wàll woowu muy statut spécial li ñu war a def mooy toog. kàmbar waxtaan diisoo daal di ne statut spécial war na am Touba lan moo tax mu war a am tubaa ñu ne lii la ak lii ak lii boo waree am tamit si yan la war a jëm parce que boo ko orienté wul ñu orienté la ko boo mënut ñu dugal la loo xamante ni da da lay da lay du la jëriñ da lay ndax nee naa la am na si ba ñuy teg statut spécial ci euh, chef lieu de région yi ca ca ca jamono ay administrateur civil la état doon teg feneen fu nekk fu ne ña askan bi lor teg. ñoom ñooy ñi nga xam ñu doon ñu doon jiite kon loolu mooy li li jiitu bu ñu demee nag ba ne lii ak lii lañu ñu war a dugal ci biir texte. kon mbokk yi lépp loo xam ne si waxtaan la wu jaaroon fii ci al ibadatu wal xidma képp ku ko bëgg a dabu wala mu am lu la ci rëccoon mën nga koo fekk ci sunu chaîne YouTube bi wala nga télécharger ci Play Store al ibadatu wal xidma lépp lu fi jaar. nga naan ko dugal foofa jërë ngeen jëf